indi mooy Covid bi Covid bi nag mooy wax ci réew mi mooy wax ci àddina bi yëpp nag Sénégal diaspora bi yëpp lu ñu wax lañu ne Covid bi dañuy ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla génne ci barke Seydina Mohamed li ko fi génnee nag mooy ñu respecter les mesures barrières il faut ñu respecter les mesures barrières mesures yi mooy takk masque raxasoo saabu tey laal gel tey respecter tey def ay écart di nuyu suñu président Macky saal parce que lu nekk def na ko ci di bi def na ci lu nekk alalam jeex na kon ñu jigéen ñoo ko mën a jàppale suñ ne jigéen nag jigéen a yor kër jigéen ay bale jigéen ay fóot jigéen ay raxas te Covid bi li bañ mooy set te kon bu ñu setee bu yàggee mu jógee fi kon sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp DG Socé Diop maa ngi lay gërëm di la sant di rafetlu sa taxawaay bii nga taxaw parce que vraiment yaa ngi xeex Covid bi. nit bu defee lu baax dañ koy wax de dangaa def lu baax dañ koy wax kon jërëjëf jaaraama. Euh, di wax ne tey jii nii euh, le président de la république yàgg nañoo jox suñu gëdd rawatina tey bi mu ko jaaralee ci suñu ministre muy le ministre de la femme mu honoré ñu nag suñu lion bi nga xamante ne moom la def point focal régional muy madame Socé Diop Dione. le ministre de la femme daf ñu wax ne daf ñu wax ne une femme un masque madame Socé Diop nañu déedéet man damay def une femme dix mille masques. kon loolu dafa rëy mu def ko si Koungheul ñëw taxaw te c'est pas la première fois kon tey bu fekkente ne lii am na loolu dinañ ko seedeel mbooloo mi ñu xam ko di wax ne nag lii nii on prend le train en marche ndax dañu si fekkoon déjà kon su demee nii day daal di gën a neex xam naa ne jigéen ñi ñu ngi si waaye nag dafa bokk ci loo xamante ne nii lu ñuy sensibiliser la kon bokk nañu di ko ci yokku rawatina sama yaay yi nga xam ne ñu ngi dem ci marché yi di jaay ak ñuy dem ci luuma yi ñu di ko sóoraale laa neex na trop ñuy laal gel waaye nag nañ ci sóoraale masque yi bul wax kii sama dëkkandoo la dinaa ko nuyu parce que amewul feebar munoo xam ki am feebar. waa tey moom boo gisee ñu ñëw Kaffrine dafa am loo xam ne président de la république Macky Sall dafa taxaw di ko xeex depuis le deux mars 2020 deux mars 2020 ci la fi feebar bi dugg day date boo xam ne bii dañ koy retenir ci épidémie yi nga xam ne ñoo mos a am euh, ci Sénégal fii nii. donc loolu bi mu amee moom dafa dajale ñëpp acteur politiques yi société civile bi. ak ñi nga xam ne ay entrepreneurs yi commerçants yeeg yëpp mu dajale leen na leen nañ leen xàccandoo dóorandoo ndax feebar bi ni il faut ñu seet lu ko fiy jëlee ndax àdduna bi yëpp la wër ndax xam ngeen ne ñun bu ñu feebaraan dañ daan dem bitim réew te bitim réew li fa dee ci nit gis ngeen ni mu toll donc nañ leen ko xeex ci kaw loolu nag ñun suñ ministre parce que ñun jigéen ñi le ministre de la femme madame Ndeye Saly Diop am xel moo xam ne ni ne léegi ñun tamit dañ ci participer duñ des gannaaw donc mu ne gouverneur wax na ko léegi sax parce que jigéen ñi ñoom wax dëgg yàlla dañ daan des gannaaw ci jour waaye bii yoon ñu ne ñun xeex bi duñ ci des gannaaw dañ ci jiitu mu ne jigéen ju nekk nga xam ne yaa ngi Sénégal na nga defar benn masque ñu dajale ko bu ñu ko dajalee dimbalee ko son excellence le président de la république dimbalee ko parent yi dimbalee ko ñëpp dimbalee ko ñi nga xam ne ñoo ngi feebar pour ñu mën a xeex feebar bi ci kaw loolu nag bu nekk dafa teg benn point focal man maay point focal bi département bu nekk am na kenn ñu dajale woon nag ñun suñuy masque comme affaire administration la woon ñu ñëwoon tey jii nag jël masque yi di ko jébal gouverneur ndax région Kaffrine ñu ngi ñu tegoon ñeent fukki junne masque ak ñetti junne mais dajale nañ ba romb ko am nañ ñeent fukki junne ak juróom-benn te loolu vraiment dañ ciy gërëm ñi nga xam ne dañ ñoo jàppale parce que jigéen ñi defuñ lépp ndax ñeent fukk ñett la ñu waxoon ñeent fukki junne ñett am na ñeent fukki junne juróom-benn mu am nag suñu càmmiñ yu góor yoo xam ne ñu ngi fi am ay ndombay tànk jàppale ñu ku mel ni l'honorable moo Dieng di maire Fatou Seck kenn jàpp na ci bu baax lay Seydou Sow ñëpp tudd nañ ko fi li mu fi def moom macha allah kenn mënu koo tudd ndax dafa jàppale non seulement département Kaffrine bi mais dafa jàppale Mada Modar jàppale Koungheul jàppale Birkelane donc ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm nag ñi nga xam ne ñëpp dugal nañ ci seen loxo. mooy lii dañ cee rafetlu dañ koy rafetlu parce que li ñu daan gis moo jigéen moo daan jigéen lañu daan wax ni moom moo soxla ndimbal jigéen lañu war a jàppale buy amee jigéen moo sonn mais tey jigéen dañoo fippu jigéen ñoo fippu ne tey ñun ñooy ñun ñooy jël ci suñuy poche jël si ay as si li ñu am jëndee ko ay masque jébbali ko président de la république pour jàppale ko ci xeex bi buy xeex euh, balaa bii di Covid 19. donc ñun duñ def lu dul rafetlu ko rafetlu ko te di leen di leen euh, remercier aussi di leen bu baax geste bii nii c'est apprécié c'est apprécié à sa à sa juste valeur vraiment lii nii mënuñu leen fay parce que xam nañ situation bi nu mu demee xam nañu que Covid bi am na impact négatif économique bu kii bu baax par rapport ak ñoom ñoom ñëpp déjà ñu ngi secteur informel donc ñoom bu leen jaralee pop euh, difficulté yooyu ñu am yëpp ñu jël ci seen xaalis def opération bii nii franchement lu ñu def lu dul dinañ leen ci remercier te di ci encourager. li geste bi ñu def ñëw indi ñu masque yi bañ ci yem nañ continuer di sensibiliser nit ñi parce que ñoom ñooy base société bi boo waxee société rek jigéen a tax léegi ñoom nañ ñu jàppale ci sensibilisation bi ñu ngi koy def sax mais ñu la ñaax rek ñu gën koo yokk ci seen njaboot seen quartier. fépp foo xamante ne mbootaay yi ñuy nekk fépp fépp foo xamante ni rek ñoom am nañ fa am nañ fa kàddu am nañ fa accès